Aïcha Sophia beurre bi ci vitamine yu bëri yi moom la Alfie di toggee su bëgg jot te euh, depuis en moment dafa jël ay voyage tey nag dëkk bu ñu naan Japon euh, la ñuy yóbbu ñu découvrir fa benn plat et da koy toggee ak beurre Sophia comme vous le derrière exactement Pape Cheikh comme euh, ni nga ko annoncé tey dem def benn voyage bu ndaw dem ba Japon jëli fa seen benn recette muy euh, les fameuses sauces euh, les fameuses sauces teriyaki teriyaki yooyu nga xamante ni tey bu jën lañ ciy defar mais laataa ñuy jàll ci partie togg bi Pape bëggoon nañu ñëw parce que boo nee octobre rose xam ni maladie cancer du sein bi moo ko andi te saa su bu ñuy wax ci feebar bi brochure yi dafay ñëw te doo lire brochure bi te gisoo ci pré méthode prévention yi nga xamante ni. day ñëw toujours ci wàllu lekkin bi naam ñi feebar la ñuy wax mais ñi feebaragul tamit war nañu xam ni lekk bi lu am solo la pour prévenir ci li nga xamante ni moom mooy euh, maladie boobu noonu. chaque fois da ngay dégg ci yeewu leen ñuy prôné fruits ak légumes nga xamante ni luñ ci togg du doy chaque fois bu ñuy togg dañ ko siy dugal di consommer li nga xamante ni moom mooy ay fruits ay légumes du ay waxi tubaab dafa nekk loo xamante ni pour sunu wér gu yaram la. ba noppi di nga am ay dépenses yoo xamante ni pour euh, feebar euh, këf la war a mu yóbbu la du du yomb. donc lu lépp lu ñu mën a am ci ay euh, fruits ak légumes euh, luñ ci lekk du doy ba tax na fii euh, yeewu leen chaque semaine dañuy andi recette yoo xamante ni c'est riche en fruits riche en légumes defar sax ay salades yoo xamante ni c'est uniquement des légumes. donc su ñu ñëwee nag ci li nga xamante moom mooy le poissons teriyaki c'est une recette recette très très facile à réaliser am na bu poulet am na bu yàpp am na bu canard am na boo xamante ni bu poisson la moom la ñu tàmm tàmmu tey pour ñëw defar ko. si suba wan nañ leen suñu filet de capitaine yi nga xamante ni moom la ñu am nii ci biir euh, maanaam euh, plat bi nga xam ne moom laay waajee def ci four bi li nga gis euh, yaawoo ma def ko ci kaw mooy gingembre bi li nga xamante ni moom mooy poudre daay gis nañu haricot yi nga xam ne moom it def nañ ko ci suba daal di koy sauté ak tuuti laaj en poudre def ci huile d'olive tuuti xorom ak tuuti poobar donc moom moom mooy ñëw nekk benn ci li accompagner poulet poisson teriyaki yi frites yi nag dootuma ci euh, wax sax lu bëri parce que gis ngeen ni suñu marque frites yi ñu andi euh, croustillant bi toujours day resté li nga xamante ne moom mooy effet dorure bi dafay ñëw parce que fii lépp lañ koy def en temps réel muy les marques frites euh, flavotraites yi nga xamante ni tey bu un kilo bi laa jël saaf ko mu jox ma quantité bu bëri bi te tibbal tibb nañ ci lekk ba suur donc moom la ñu saaf nee naa la muy frites yi nga xamante ni du naan dawlin benn yoon parce que dawlin tam baaxul sunu wér gu yaram ay frites la yoo xam ne day croustillant ba noppi euh, boo ko saafee dafay doore ni nga koy teel a saafee ba au moment bi ngay lekk croustillant bi dafay des donc moom lañu leen andil euh, mën ngeen woote euh, ci 33 855 55 40 bu fekkee yow mi nga xamante ni yow yaay seetaan am boutique bu rëy nga mën ci am pour mën a jaay en détail ah mën nga woote ci 33 855 55 40 ñu daal di la ci andil lu doy pour nga mën ko jaay Euh, ñoom Amina ñi nga xamante ni day léeg-léeg 400 grammes bi moo leen arrangé wala ñi nga xamante ni kilo bi moo leen di arrangé li nga xamante ne nag moom mooy euh, euh, poisson teriyaki pap yi beurre sofia andi tey damay teggi ni sama pot bi pot beurre sofia ak meew bi nga xamante ni maa ngi ciy ñëw léegi am naa fii ci casserole bi tuuti coca du pour def publicité mais dafa bokk ci recette bi donc moom laa def ci fond casserole bi li ma ciy dolli mooy sauce soja xam nga boo nee sauce soja ni japon fa yuusu di waaja dem du ay dóor Euh, boo nee li nga xamante ni moom mooy vinaigre de riz moom tamit dina ci dem mu nekk ay vinaigre yoo xamante ni fekk na baax euh, japon donc moom tamit dina ci dem euh, coca vinaigre de riz ak li nga xamante ni moom mooy sauce soja sauce ñokman moom laa jël muy sauce yooyu nga xamante ni dama koy jaxase tàngal ko pour mën ko jël sotti ko ci li nga xamante ni moom mooy jën bi donc am na nag ay sauce teriyaki yoo xamante ni soo demee ci commerce bi da nga ko fekk mu pare comme ni ñuy jaayee sauce soja euh, vinaigre de riz wala sauce ñokman euh, mooy sauce yi nga xamante ni tàmm nañ ko trop bu ñuy defar ay neem donc bu ñu éviter def xorom parce que sauce yi ñu présenté léegi bu ci nekk dafa saf xorom donc bu ñu tàngalee euh, vinaigre de riz bi coca bi ñu wax léegi sauce soja bi sauce ñokman ak li nga xamante ni moom mooy sauce li nga xam ne mooy vinaigre de riz damay def tuuti dëwlin parce que moom tamit daf ciy am importance pour li nga xamante ni moom mooy andi brillance bi ci biir togg bi ñu daal di mélanger nag léegi bu tàngee gis nga dëwlin fu mu dugg dafay émulsionner comme genre mayonnaise yi nga xamante ni moom la ñuy defar bu ñu defee nen da ngay gis ni dañ ciy def dëwlin yëngal yëngal boobu ñuy yëngal moom mooy andi émulsion bi ba affaire bi nekk sauce donc loolu itam euh, c'est bon que ñu koy euh, rappeler gis nga bu ñu yëngalee dafay fuur dañuy jël nag mélange bi nga xamante ne moom la ñu def léegi associé sauce yi daal di sotti ci jën bi ma jegal si ko ni donc buñ ko ci sottee day dem directement au four ku ne xam na ni jën temps de cuisson bi yàggul du yàgg dara dara nga gis ko mu ñor du sax am 10 wala 15 minutes filet de capitaine yi daal di génn ànd ak sauce teriyaki muy cuisine japonaise bu génnee ñu daal di koy di ko déguster ak haricots yi ak frites yi nga xamante ne moom la ñu euh, présenté bu leen fàtte nag. les marques euh, Sofia muy beurre bi ak meew bi chaque fois Pape da koy wax am na bër am na meew mais indi naa la li nga xamante ne moom mooy ananas bi andi thon bi andi li nga xamante ne mooy euh, lunch show meat yi di ay euh, corned beef yoo xamante ne dinañ ci ñëw moom it ci biir semaine bi beurre Sofia ak meew Sofia di leen jaajëfal ci taamu bi ngeen ko taamu Pape da koy wax léeg-léeg nga dem marché ba fekk ko mu manqué léegi Pape du ñu def lu dul préchauffer suñu four à 250 degrés jël li nga xamante ne moom mooy poisson bi enfourné ko d'ici 15 jàpp 20 minutes mu génn ñor ñu jaar ci dégustation privée bi pap yow ah, ba sa fur boobu nag na nga ko ŋàbb yóbbu ko te xam ni lundi euh, yeewu leen euh, day dem ci benn plage. dañu wax ak benn plage voilà yóbbaaleel fuur bi comme surtout a Ngoone Sobel moo ko génn tuddee ko Sobel kitchen Sobel ab tubaab la di jëkkër ah, mami Sobel waaye damaa jàpp ni rek Amary Ngoone Sobel ay maamam mhm, mhm. ndax Sobel kitchen donc lundi matin yeewu leen dinañ ko def ci euh, plage euh, xaw a kokkali tuuti xale yi parce que lundi la école di tijji et que vacances yëpp a feesoon ci plage yi moo tax mënuñu woon def fa émission comme da ngeen jàngi lundi on sera très libre euh, ñu yeewoo foofu gunge téléspectateurs